dama bëggoon euh, dikk rek tey ci euh, problème mu euh, Auchan bi nga ñëwoon doon implanté wu Touba pour Magalu Touba ñu dàq leen muy problème boo xam ne wax dëgg woon dafa ma jaaxal trop ma am ci kersa lool ndax Auchan dëgg la société la boo xam ni français yi ñoo ko du mom rek la France mom muy opérer Sénégal euh di opérer Touba euh, ndax orange ngi nii euh, France ko mom am nañ siège Touba bo xamni ci jamono yi ñu fay ñëw kilifa yi ñu leen ko jox may leen ko muy suuf si yaatoo yaatoo yaatoo di nekk fa te man gisuma Orange ban njariñ la amal askanu Touba ñu mu amalul ñeneen lu yaasu da ngay téléphoné lu cher nag sax lool

soo demee marché Touba boobee ay chinois nga fa di jaay seen marchandise moo xam ne mën naa ne lépp togg la dara ci marit la jaay da nga fay jëndal gone ay dàll sax mu koy natt mu yàqu ca natt ba da koy jaay eh, ay ñoo xam ne duñu ay murit ña nga fa ay salafis ña nga fa supermarché bi lakkoon lakk nga tàmbalee daaw kooku moom murit ab salafiste la te day jël ay ay ay gone yoo xam ne ay murit lañ ay taalibe leen financé leen jox ñuy def commerce wala ñuy def wala ñu jëlal leen taxi wala leen lu mën doon ngir buñ nangoo ci kaw buñ nangoo génn ci yoonu murit doon doon ab salafiste ne nga euh, fay impôt ñu fay patante dara duñ ko fay benn taxe duñ ko fay lépp lu ñu fa ramassé ci xaalis muy ay milliards yu milliards lay doon benn dërëm du ci des Tuubaa ci lu jëm ci sëñ bi wala lu jëm ci luy euh, dimbali askan wi te bari nañ ko ñaata centres commerciaux ñoo fa nekk ak ay boutiques yoo xam ne bu ñu leen naree fayu bu ñu ne suba la ñuy ñëw pour fayu si ñoom ñëpp dañuy tëj te lu ci tijji ay milliards lañ koy amaate nga xam ne kon ñooña fas euh, yéene amal Touba njariñ euh, te euh, Auchan ba ñu fi toogee ba léegi nii at mu jot danañ yóbbul sëriñ bi valeur u trente millions ci marchandise te mosuñu cee boole publicité kam ñu néew ko xam nga xam ne kon kon nañu jàpp ni bu dul ngir yàllaat soriwu ko ndax bu doon ndax bu ñu ko defuloon ngir yàlla dañ mën nañ ko publicité ba ñëpp xam ni ña ngay yóbbul sëriñ bi addiye ji te ay mori dafay liggéey ak i sénégalais ñoo fa nekk di liggéey benn tubaab man gisuma ko Auchan mu di fa liggéey xëy na bu direction générale ba lay doon waaye mbooleem surface yi nga xam ne dañu nekk ci euh, quartier yi man mosuma faa gis tubaab donte la ma fay dugg bariwut waaye mosuma faa gis tubaab argument yi nga xam ni moom la wax ne eh, moom moo tax ñu dàq sang dara taxawu ci nee nañ dañuy jaay sàngara ak dañuy jaay yàpp mbaam mais kan moo xalaatay jël sàngara wala yàpp mbaam nga ne danga ko yóbbu Tuubaa di ko jaay te xanaa bu di ko jaay ku koy jënd ah, benn nit xalaat na loolu kenn ñemewu ko te ñoom quartier populaire yi nekk biir Dakar sax wala yi daan nekk jàkka wala ay lieu de culte sax lu ñu fa jaay lu ñu tere waxuma laaj nag dëkk bu mel ne Touba kenn kenn sañu ko loolu bu ñu ko fa indiwoon benn benn tëddum tëggum ndënd ak si ñu lay doon loolu xam nañ ko ah nañ wax leneen ah prix eh, marchandise yi ñuy jaay marchandise de bon qualité lay doon prix yi trop dañu war a xalaat askan yi wala ñu xalaat intérêt lobby commerçant yi nga xam ne amuluñu dëkk ba njariñ seen bopp dong lañ fa nekkal waaw xëy na danañ ko rompre benn wala ñaari nit ay ñu def lobbying ah pour pour pour défendre seen intérêt mais intérêt population bi euh, lañu lañu la ñu war a seet waaw li ma gën a naqari mooy màggee gi jub si di fa Auchan jógee nag dañu daal di yóbbu prix yi foo xam ni dafa yéeme yokku ko amuñ benn yërmande ci nit ñi dañu xaar ba màggal jub si nga xam ne nit ñi seen loxo jurul seen gannaaw ci la ñuy gën a soxlawoo euh, euh, lu yomb ci lañuy ñuy profité yokku prix yi yokku prix yi ah dem na ba ci transporteur yi ñëpp bu màggal amee wala xew am dañuy jël prix yóbbu ko ci loo xam ne pour profito pour am profit seen bopp loo xam ni mën nga ni daanaka riba la parce que am na bénéfice yoo xam ne jaaduwul li ma ci gën a nag mooy bu màggal gi jub see fu mu produit périmé ci Sénégal ak su région bi danañu ko acheminer indi ko Touba jaay ko fa waaw boo demoon Touba bitig boo dugg contrôler amul benn boutique boy dugg Touba contrôler te te fekkoo fu lu mat fukki produit yu périmé yo xamni kenn xamul seen date de préemption kañ la won ñu ko fay jaay di ko jox ni ñu di ko lek di feebar ñaata pharmacie clandestine ñoo nekk Touba di jaay de faux médicaments yo xamni de faux médecin ñoo leen ko prescrire di lor askan bi ndax loolu mom jarut a leeral waaw du médecin bindal bindal la ordonnance nga dem ci ku dul pharmacien mu jaay la garab go xamni faux médicament la loolu euh, jërul sara euh, charlatan yaa ngi nekk ci biir Touba maanaam fétichiste yi euh, gone yooyu ree rek jigéen ñi nga dégg ñu ne jàpp nañ leen ak sàcc nañ leen ak ñoom ñëpp ñoom ñoo leen di ñoo leen di ñoo leen ñoo leen di ñoo leen di sàcc di dagg seen i cër ah di ko defee ay fétichiste ngir ñu bëgg a am alal wala ñu bëgg a am mbooloo wala ñu bëgg a am ndomb ak tànk ñu leen fay xaalis bare bare ña nga fa. ah man yaakaar naa am na priorité yoo xam ni moo gën a farata ay commerçant yoo xam ni dañoo yor seeni marchandise de bon qualité di fay lempo ah yombal ko ñëw ci dëkk ne dañ ko fay jaay ngir population yu profité fa ñun leen du ngeen ko fi teg ngir lan ngir lobby yoo xam ni seen intérêt bopp dong dong dong lañuy seet ah ñoom ñoo ñoo ñoo nekk ca gannaaw waaw te man dynamique tere bi fa mu fa mu xam naa ko fa eh, ñam cosaanoo ñoom waxuma ñu ko ñu dem ba véhiculé ko ba ñu dindi ko fa waaye ci ñoom cosaanoo ñenn ci ñu ko euh, ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko yaatal euh, mbirum Tuubaa ñoru leen seen bopp dong dong dong moo leen ñor waaw kenn amul kenn ko xam ne ràññee na leen ci euh, défendre intérêt Tuubaa ak askaru Tuubaa waaw moo jàpp ne nag loolu xam naa ni day loo xam ne sëriñ bi mm, yëgu ko leeralewuñ ko ko noonu leeralewuñ ko ko noonu ndax euh Auchan mom wax dëgg yàlla do nga la fay doon waaw té Dakar gi mu implanté wu ak yeneen région yi té wut commerçant ya fa nekkon na mm, ngay jaay euh amu ci kenn ko xamni euh teñ nga sa boutique waaw amu ci kenn ko tej boutique na ngay jaay waaw xëy na seen bénéfice dafa wàññiku parce que tam nak dafa jaaduwut ngay jënde ben di jaay fukk dafa jaaduwut di di di di di di lor askan yi dafa jaaduwut ni nga xam ne noonu la commerçant yi euh, Dakar commerçant yi Mbour commerçant yi Thiès ak partout où euh, Auchan est implanté ni ñu def bay survivre ba soutenir concurrence ba commerçant yi tubaab war nañ ko mëna def ñoo leen ko wara gëna mëna a mën a def ndax ñoo leen gën a néew yu fare ndax koo fayoo dara fayoo ndox fayoo fayoo fayoo dara war nga mëna a soutenir concurrence bu bu waa Dakar concurrence naka euh, ñi nga xam dañu war ay bitig ak centre commerciaux ne ay kilifa mom ko ne duñu fay dara commune bi ndax dañuy joxe addiya dafa mel ne kon xanaa commerçant yi nekk yeneen région yi di fay location ah di fay moo dem taxe bu ñu war fay te dàq leen joxe addiya ñëpp kon dafa mel ne kon xanaa <laughs> ñooñu ñooñu kon moom loolu moo mën a jafe seen biir kon ñoom jox addi joxuñu addiya dañ koy jox ay location lañ koy jox voilà dafa am yoo xam ne daal seen man dama dama cee rus wax dëgg yàlla bi ma déggee ñu ne Auchan dàq nañ ko mu génn Tuubaa ak lañ fa investir lu bon bon investir nañ fa cent et quelques millions yoo xam ni am yaakaar doo nga taxoon te ay murid dafa ne ay murid ko jiite man bi ma déggee loolu dama ruus wallahi azim barke si man dama ruus dama ruus am na loo xam ne rafetul jaaduwul waaw te it war ñoo dimbali sëriñ bi war na ñoo dimbali askan bi waaw man de bu ma soñoon benn Auchan sax du am Touba fukki Auchan yi am Touba parce que askan bi sonn nañ duñ leen jaay prix yu baax duñ leen jaay produit yu baax ah di leen bëgg a rey ci turu sëñ bi sëñ bi sëñ bi te yow amaloo sëñ bi njariñ bu sëñ bi laajee doo joxe bu wootee doo wuj danaa ko répété waat je n'aurai de cesse de le répéter bu yàgg boobu boobu yàggul bi ñu leen ko imposé sax marché yi buñ masaan di balee ngir mbalem jumaa ji mbale màggal gi duñu tëj seen boutique dañuy aj seen i tànk ba ñu nag xamal leen nag lii mënatul a wéy moo tax ñu continuer di dara defuñu ko ci eh, mbaleen yi ñi nga xam ne ñoo ko jiite muy seen Cheikh Abdou Latif ak faal mm, Fall yi mu ko àndal njabootu Cheikh la akrobasi bu ne lañu def pour am ay carburant yo xam mom moom lañ jox camion yi ramasser malit mi han ak ak ak lu ñu di togal ak ak luñu len di luñu def lu ne lañu daj pour pour pour pour pour pour pour pour pour comme pour am ko han tan ñi gëna a ëpp ci luñu taxal moy moy jaay kat yi sen sen sen yeguñu yeguñu ko sax ak sen yaram waaw ñooñu nag jar nañ ñu ñu jëlé fi ñoo xam Euh, li ñu fi indi njëriñ la ci askan wi njëriñ lu àndul ak benn lor ban ban lor la présence su Auchan amul population Sénégal wala boog dañoo privilégié intérêt commerçant yi nga xam ni wax naa ni commerçant yi buree nga ca ay chinois nga ca ay salafiste nga ca ay ay ay ay ay étranger nga fa nekk fa di euh, brasser ay milliards ay milliards yi milliards ak ay centaines de million ñu koy am te dara lu ci des ci dëkk bi ndax yéene ci sëriñ bi dara yéene wuñ ci population bi dara ñu bàyyi leen fa yaatal leen fekk ñoo xam ne seen mbir lépp ci régal la tege parce que ñoo ñàkk a tegu ci régal ñoom ndax seen seen ni seen mbir doxale la ñu daq leen fa ngir jëm ñooñu man loolu rafetlu ma ko ñu ñaawlu naa ko tey kersa laa ci am. waaw dama ci dama ci rus dama ci rus te bu fekkee dañu oran Auchan day jaay lii wala daan jaay lee di ko jaay Ndakaar wala di ko jaay feneen ah am na partout Makka sax wax da nga fekk moo demee réewu arab yi da nga fekk Auchan réewu jullit yi Sénégal yëpp da nga fekk suñu euh, yëpp da nga fekk Auchan voilà euh, bu fekkee ne ñoom dañu ni euh, Auchan day jaay li wala day jaay laa te donte jaayu ko Touba mais lan lañ wax ci banque yi nga xam ne dañu implanté wu Touba di fay ay intéret ñi nga xam dañ faa déposé seen xaalis di fayu intéret ñu néew ña nga xam ni sax dañ fay dañ fay leb xaalis te ku ne xam na ni intérêt dafa araam <laughs> yàlla wax ci alxuraan intérêt dafa araam waaw te ña ci biir Touba di ko def te eh, amaluñ askanu Touba benn njariñ kan moo fa mos a ñu ne la banque sangam joxe na fa def na fa benn donation wala mu tabax fa benn infrastructure wala mu participer fa ci benn activité boo xam ne dafa amal askanoo njariñ kenn mosu ko dégg te ay milliar ay milliards yi milliards la ñuy jël toutes les banques de Touba sur liquide ay milliards lañuy ñuy jël di ko dugal ci euh, leble ci marché monétaire beeg di ko dugal ci ay investissement yoo xam ni euh, yeneen la amal njariñ te dañ koy jox sax amaana euh, ay ay ay ay bokk nañ ci mbooloo yoo xam ni xëy na ñuy xeex diine lañ ñuy doon wala ñuy xeex lislaam wala ñu amul benn beneen benn njariñ askan wi la jël xaalis ba nga xam ni ñi ko liggéey Touba lañ ko liggéeyé yobbu ko ci banque yi nek Touba ñu jël ko lebal ko ñoña te kenn waxu ci ben banque bu fay lebal ben particulier ah bu dul le banque yu bëss yoy ñu xaw le crédit xaw ma lan ak lan bu fay lebal ben particulier bu dul salarié bo xamné dafa domicilier salaire am ci banque bu am bu ñuy lebal ay commerçant lañuy lebal ñu dem jëndi marchandise indi ko jaay jaayee ko prix bu cher askan wa euh, fay leen ñu jël bénéfice yaag lépp dem investir feneen donc amuluñ kenn njariñ ñooñu lañ war a njëkk a wax ah euh, orange bi ma doon wax sànq euh, sonnerie ñaata ñaata ab nit ñu abonné ci ay sonnerie yoo xam ni dañuy bëgg ku leen di woo ñu tegal la xasida sangam wala jàngkat sàngam nga nga déglu ko ba bañ lay wuyu lolé pour nga am ko da ngay fay 300 francs par mois khalatal ni bu fekkone 1 million de personnes ñom ñoo abonné ci service bobu 300 millions lay don par euh, par par weer la ci orange di gagné millions yoy multiplier ko par 12 mu ñaata la lay jox ci paris té xaalis bobu euh, ñi ramasser kan lañ koy jox kan lañ koy jox kan lañ ci fay ah kan lañ koy fay parce que xasida yi mom seigne touba ko mom bu ko jang kat jangé bu fekkone jang kat wala ñuy fay sax manes na wax waye téw xasida moom Sëriñ Tuubaa ko moom dafa ko ne dafa am euh, dañ copyright copyright ci turub Sëriñ Tuubaa lay doon ndax moo ko bu buñ ko doon fay ña ko jàng sax euh, leen ko jox directement ba tey ñu mën a wax mais amul benn transparence amu ci bu fekkee ne dana dañ koy jox euh, bureau des droits d'auteur tam ñoom war nañuy publier ah, une une liste exhaustive ah des paiements effectués ñan lañ jox xaalis ba Ah, ak ñaata lañ leen jox ak ñaata lañ Sonatel encaissé loolu dañ ko war a def mu nekk bilan boo xam ni eh, ñëpp dañ ciy teg seen bët mën koo contrôler mën koo vérifier parce que amuñu droit jël eh, ay œuvre euh, littéraire jàmbur ah di ko monnaayee ah, te eh, xaalis bu nu xam fu mu dugg kan lañ kan lañ koy jox ak kan lañ ko leeral ah loolu yaakaar naa moo gën lijjanti lu demee noonu moo gën a doon farata dàq commerçant boo xam ni tooram mooy. indi marchandise mu bax di ko jaay ci prix yomb ah di ko ci barab bu set waaw xam dem ci boutique di jënd dara mu mu songal la euh ben ben sagu ciment mu ja daqé mu feug ko ah defal la la la la la la la lay jaay han wala mu jël mous han euf ko ak gimiñam soral la ca la nga bëgg han nga dem nga dem lek def na yaa loolu loolu dafa dafa jaadul sëñ bi il faut ñu ñu seetaat mbir yi bu baax a baax a baax il faut ñu dimbale sëriñ bi il faut ñu dimbale sëriñ bi il faut ñu dimbale sëriñ bi seet intérêt ñi nga xam ne dañoo yaakaar sëriñ bi te bañ a seet intérêt ñi nga xam ne dañoo dañuy jëriñoo sëriñ bi wala di xool suñu intérêt bopp kese waaw loolu daal laa amoon lu may wax waaw di di di di di di ziar bu baax nag di ziarewaat bu baax nag sëriñ Mountakha xalifa général de di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ndax ku am njariñ la mu taxaa ku am njariñ la koo xam ne amal amal na njariñ Sénégal gépp na gépp la amal njariñ waaw nañ ko ñaanal mu yàgg fi wér te ànd ak sagoom wa rahmatullahi wa barakatu